asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di baax di leen yéen ñi nga xam ni yéen ay euh, sapo liberté d'expression TV euh, tey nag dikkaat nañ ci benn sujet boo xam ni bu am solo la muy euh, mesures yi nga xam ni gouvernement bi jël nañ ko taw toll ci ñaar fukk ak ñaar duñ def lu dul déglu ministre bi premier ministre Amadou Ba tuuti rek dikk àggale suñu jàngat bi incha allah. ça fera l'objet de discussion. entre les transporteurs, les chauffeurs et le ministère. Le ministre en charge des transports, quatorzièmement, le ministre de la Santé, de proposer dans les meilleurs délais des modalités d'une plus grande implication des services de la santé dans l'appréciation des aptitudes. Euh, man nag euh, bon li ma njëkk jàngat ci wax ji mooy euh, dafa nekk mbir yoo xam ne mbir yu retardé la maanaam dañ ko yéex a jël dañ ko yéex a jël mooy yow ñaata ak Sénégal mi ngi jànkonte ki e, mi ngi mi ngi jànkonte problème transport accident yi foo toll accident yi di am ñoom ñu bàyyi ba deux mille vingt trois deux mille vingt trois ngay soro jël mesures yoo xam si yu mel ni la te mesures yi e, wax dëgg yàlla e, am na solo yi am na yu ci am solo yoo xam ne am na solo su fekkoon teel nañ ko jël amoon na solo trop wante dafa lëkkaloowut ak ni ko chauffeurs yi ma ne ak li nga xam ne si bàyyi nañ chauffeurs yi ñu nekk ci seeni mbir ba jamono yi ñuy soxla naan dañuy jël mesures yi dañuy jël mesures dañuy jël mesures yi parce que xam nga ni euh, suñ jëlee lu ci mel ni transport ay bagages nga xam ne si doo amatoo droit teg ay bagages ci wala amatoo droit charger yenn bagages yi loolu boo ko tegee chauffeur boo xam ne si lu ci bëree bëri ci ay bagages am ci la ko euh, wékk euh, di nga ko lor vraiment di ko lor quoi ci koo xam ne si loolu ci la xalaatu na yor njabootam di ko lor bu baax a baax mboolem chauffeur si nag. mesures yi ñu jël yépp woor na man nañu ne du leen arrangé parce que niñ ko jële baaxul waxtu wi ñu ko jël baaxul te avertir duñ leen sor ko jël eh, ànd ak loolu eh, li xew nii ba tax ñu jël ko yàgg naa xew te kenn mësu ko jël eh, baneen bi nga xam ne si nag man moom laa jàpp ni moo waral li nga xam ne nii su fekkoon li xew ci tali bi dix la wala su fekkoon cent la quatre-vingt-dix pour cent yi man dama jàpp ni xeetu ni ñuy joxe permis ci Sénégal mooy yomb ba nga xam ni eh, lu bëree mën naa jur lu bëree bëri ndax li tax su fekkee permis eh, parce xam nga ni moom moom mbirum conduite dafa nekk mbir mu eh, sensible moo xam ni mu xaw a mooy koo xam ni. la muy dawal dafa dafa yeb ay bakkani doomu aadama yoo xam ni su fekkee nekkul ku xam ay ay responsabilité nekkul ku respecté nit ñi kooku pour mu def njommee lu yomb lay doon te ni ñuy joxee permis ni mu yombee nga xam ne permis daanaka léegi eh, soo mënee wax wax ju leer rek naan dañ koy jënd mooy soo amee sa xaalis rek soo mënee dawal tuuti loo man a loo mën ci conduire ko su néew rek da ngay am permis daf lay daal di yomb te permis bokkoon na ci li ci li ci docteur dem di faji ñaar yooyu mu bokkoon war nañoo bokk ci yi gën a jafe permis parce que permis xam nga ni xel ni ay bakkan ba aadama ngay sëf sëf ay fukki fukki bakkan sëf ay di ay téeméeri téeméeri bakkan par semaine wala ay junni junni bakkan par at yooyu noonu su fekkee xamul xamoo say responsabilité wala sa xam-xam ca mbir moo des na pour nga def ci njommee day gaaw trop trop trop trop te loolu xam nga ni loolu état Sénégal wartoon xaar ba heure ba nga xam ni dem nañ yor nguur gi lu mat dix ans wala onze ans di soor a xalaat lii ci mbirum permis ak mbirum transport bi parce que loolu respecté doomu aadama la respecté nekkee doomu aadama eh, dafa nekk mbirum dawal dafa nekk mbir moo xam ni eh, kenn waru koo jaaxaale sa âge ba mat nga dénk responsabilité bu diis yi wala matul yooyu ko ba ni ñu waxee nii parce que dégg naa ñu dugal ko ci amul ko dugal ko ci loolu am na solo dafay yeex koy yeex a def mel Sénégal biñ ñoom biñ ko jiite ba léegi mosul am transport mosul am faay boobu te eh, faay boobu eh, mosul jóg ci Sénégal xanaa kay day gën di yokk chaque année chaque jour chaque weer day gën di yokk parce que eh, ku la jiite nga jàpp ne mbir mii du la ci contrôlé loola neex nga cay def